alquran moy sujuutab YouTube léegi noonu yalla mo wax sujuutab YouTube tilawa, tilawa mm-hmm. ndax tilawa mm-hmm. moom du nek benn bar rek fo nga jang lu xaw bari Quran mm-hmm. amma qur'an gi ri jang mom man na nek benn bat kese ñew rek ne laa yasjudun loolu qur'an lañ koy tuddee dégg Eh, kon boo waxoon su jóotab mooy gën a yàlla mun su jóotab quraan su jàngal quraan nag kooku borom xam-xam wutee nañ si ñu ne sunna la ñu ne ngëneel la ñu ne sunna la dañ ne tiyaaba gi moo ëpp parce que tiyaabab sunna moo ëpp tiyaabab ngëneel foofu rek la bi nekk ci mm-hmm. sunna la ak ngëneel la ak farata ci wàllu tiyaaba la waaye wudul loolu yëpp jaamu yàlla la sujjóotal alxuraan ku koy def même bu fekkee la nekk dana sujjóot mm-hmm. buy jàng alxuraan ba jàng barab bu mu war bu dee si la nekk mm-hmm. dana sujjóot waaw loolu dinañ ci ñëw yàlla dafa wax ne ida quri'a alayhim alquran la yasjuduuna am na ñoo xam ne buñ jàngee alquran ci ñoom duñ sujjóot kon loolu yàlla santaane la dafa ŋàññi koo xam ne nii buñ ñu jàng alquran doo sujjóot kon dafay war a ne bu ñu jàng alquran war nañoo sujjóot waaye sujjóot googu daa am barab bu ñu koy defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na jàng alquran si saar woo xam ne am na sujjóot daf koy sujjóot bu ko sujjóotee saxaaba yi ànd ak moom sujjóot kon loolu war na ne ñoom dañ doon sujjóot sujjóotab alquran yonent bi wax nga ne seytaan eh, doomu aadama bu sujootee hmm. seytaane dafay beru di jooy hmm. naan toskare ñeel na ma doomu digal nañ ko mu sujoot sujoot na am na aljana hmm. man digal nañ ma ma sujoot ma bañ safara ñeel na ma gis nga ko bon bëggul bon moo tax iblis sax su doomu aadama sujootee moom day rëccu jamono jooju kon kon ku nekk war naa fexe iblis di rëccu saa su nekk ndax moom loolu la yelloo borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne nit ki buy jàng alquran dile ci jamono julli la dafa war a sujjóot loolu borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ànd na nag am na ci ñeneen seen ci ku weddi ne sujjóotam alquran sharia la kenn du ko jàppee xéeféer ndax leerul bu ëpp xam nga am na yoo xam ne nii moom fatiha alquran la bokk loolu ku ko weddi dañ naan xéeféer la rek parce que loolu ku jàngul sax xam na ko masal yi nga xam ne ni ku jàngul sax xam na ko ah yooyu ku ko naan xeeféer dëgg la siiw na foofu moo tax ku ko weddi dañ lay kàccoorloo waaye duñ la xeeféer la ka digal mu su jóot su jóotee alxuraan mooy kiy jàng wala kuy déglu kuy jàng nag mën naa nekk kuy jàngale wala kuy jàng alxuraan ak kuy euh, kuy kuy kuy déglu boo xoolee kuy jàng mooy ki mën naa nekk kuy jàngal rek kuy déglu nag moo nekk kuy jàng kuy jàng alxuraan balaa sujjóot ci wetam alxuraan foofu sartaay julli dana dajee ci moom boo doon jàng alxuraan da ngay laab ci toj mooy jàpp wala sangu wala tim laab ci sobe bul takk sobe suturaal sa soo jàngee ba barab bi nga war a sujjóotee nga jubli xibla door sujjóot ñeent yi bu ci manqué doo sujjóot parce que sujjóote wal quran julli la te julli balaa nga koo def foo charte yi dañoo daje ci yow ndax ki koy def war naa mat mu kalaf war warul mat mu borom xam-xam yi wutee ci ñu ne xale dana sujjóot sujjóote bu jàngal comme ni nga xamee ne xale mën naa julli naafila ñu ne déedéet ki koy def mooy mag waaye xale du ko sujjóot loolu la ujoor wax ujoor yi moom Nana, fau foow mu nekk mag moom mu denga alquran mm. dégg nga teewul am na si yeneen sëriñ yi ne sopp nañ ci xale mm. loh ko mm. dégg nga ndax xale sant nañ ko mboolem loo xam ne imam, hmm? loolu it moo gën a xelu li wajoor yi wax bu dee dañuy jàng alquran duñ sartaal nga mat imam wala nga mat alquran dana alquran dana sujud na yow mi jang amma kuy deglu bala mo sujud faw ñetti saat dajé ci mom moy na tok pour jang alxuraan wala jang atté alxuraan moko tax di deglu su fekke da nga deg ben way bu jang alxuraan nga tok pour lan am ci tiyaba do sujud boy yeggee si barab bu ñu wara sujud mom mi jang yow do sujud parce que da nga tok pour am tiyaba mais togo pour. jàng alquran toogoo pour jàng ay atte ci wàll alquran dégg nga su fekkee da toog noonu rek ci barab bu ñu jàngee alquran waaye jubloo ci dara sa toogaay ak yow yow jàngoo buggoo ci tiyaaba jubloo ci dara yow it doo sujjóot bu waaj yeggee ci barab bu ñu war a sujjóot doo sujjóot ndax yow yow mi déglu jubloo dara dégg nga hmm. naka noonu it ki nga xam ne nii moom ngay déglu na nekk ku mat imaam te foo mu jàpp su fekkee ki ngay déglu jigéen la bu jàngee bara boo war a sujjóot yow doo sujjóot ndax moom matut imaam su ngay déglu dégg nga mm, saay la bu jàngee bara boo war a parce que moom matut imaam foo mu mat imaam moom mi ngay déglu waye wit it sarta julli foofu mu dajee ci yow parce que julli la kon bu dee kii jàng rek la sarta julli rek bu dajee ci moom mën naa sujjóot bu dee da ngay déglu nit nak ki ngay déglu nag si jiwlu jàng alquran wala atti alquran yi su ko defee mom mi ngay déglu nit mu mat imam kooku su jàngee barabu sujud même bu sujjóotul yow war nga sujud waaye na fekk yow it yow mi jàng sarta julli dajee ci dajee ci yow dégg nga ah, loolu mooy att bi foofu waaye nag biñ la waxee ne ki ngay déglu na mat imaam mooy na mën a jiite rek waxuñ la na mat sa imaam yow soo doon déglu koo xam ni mënul rukkon ci misaal te fekk jàng alquran nga ci namm te yow mën ngaa rukkon laab nga sartaay julli yi dajee ne ci yow moom bu jangé barabu sujud yow da nga sujud pourtant kooku mënu la jiite parce que yow ru ko taw te mënulu ko waaye nag kooku man na jiite ku melni mom hmm dégg hmm. nak no ni borom deglu ko xamni dañu sib mu jiite ah hmm. niki borom ak góom wala borom ak wala yoy ñu sib dal bu jangé barab bo xamni war nga ci sujud da nga sujud parce que kooku man na jiite dañ ko sib rek dégg nga ah, su fekkee nag dangay ngay jàngale alquran kiy jàngale moo kiy jàng alquran ñoo yem sarta julli foofu ñu dajee ci moom kuy jàngit it moo kiy déglu ñoo kookit kooku foofu mm, ki muy déglu mat imaam moom it sarta julli dajee ci moom waaye fa ñu wutee rek mooy kuy jàng wala muy jàngale su fekkee dafay baamu affaire bi di ko wax ay yoon yoon yoon wu njëkk bi rek lay sujjóot yeneen yoon yi dugg sujjóotal xam nga tey boo wahal waxal ay xale bind hmm. ben barabu sujjóot mën nga ko wax fukki yoon ak juróom ci bis bi yoon bu ñu ko njëkk wax rek hmm. si nga koy sujjóot amaa yeneen yoon yi même muy hmm. ko bind bi yoon bu mu ko njëkk wax ci la koy sujjóot amaa yeneen yoon yi nga xam ne mu ngi baamuwaat bind boobu pour mokkal ko yooyu du ko sujjóot loolu ñuy différence kuy ak kuy ci kuy déglu ak fekk ben rek wa sujudul quraan sujudam al quraan ida ansarta fukk ak benn la sajdatan si sujud fukki barab ak benn moom la ñuy sujud ci alquran dana ko jàngale waaye ñoom alansaay mu mooy yuñ dog yi maanaam yañ digle ñu sujud ko loolu lañ nam ci ñu dog yi ñu dog yi nag wuti nañ ci firim waaye daal mën ngaa jàpp ne mooy yañ digle boo jàngee ba foofu nga sujud ko am na ñu ne azaayim mooy yu fade yi mm-hmm. mooy yu fade yi mm-hmm. lay sa nekkul fil mu fasal yi ci saa yu bëri taqale yi mm-hmm. min ha ci al ci eh, sujjóot yooyu séewun dara saar yu bëri fasale kenn du ko sujjóotal mooy saar yu bëri bismillahi rahmaani rahim maanaam suratu xujuraat ba naas xam nga foofu daa bëri bismillahi rahmaani rahim léegi rek nga jàng rek jeexal saar rek commencé ak bisimilah amaa ci kaw hmm. da jàng lu yàgg doo wax sa bisimilah parce que doo jeexal saar hmm. moo tax ñu tuddee xujuraat banaas al mufassal hmm. mooy saar yu bëri teqale ko dalee xujuraat banaas amul su jiitam alquran yooyu ñooy mu fasal kon fukki barab ak benn yii ñoom lañ digle ci ngiram Malik nga sujootal ko yu dul fukki barab ak benn yii boo ko sujjootalee bu dee si julli nga nekk si julli nga lu mooy nga roy beneen imam boo xam ni moom daf koy sujjootal waa si julli yàqu mais boo roy benn imam yow yaa toog ko te fekk yaa ngi si julli si julli dafay dafay yàqu bu fekkee yaa ko tey amma boo ko teyul moom jum la rek ku jum yokk moom day sujjoot baaxal salaam rek دينا كل يوم يا العظائم يندقلي في ألف لام ميم صاد بوجانجي تي ألف لام ميم صاد عند قوله فوخي الله جمنان ويسبحون درنكو سبال ويسجدون درنشيون له نيالكو ومم آخرها ممجيسي صار وودي عرف بوكو جيخري لنفال alif laam miim saad boo koy jàng boo ñëwee ba si wa yusabbixuunahu wa lahu yasjuduun na nga sujjóot parce que moo jeexal saaro kon loolu si barab yi ñu war a sujjóotal la bokk fa man kaana ku nekk nag fii salaatin ci julli farata wala naafila wala mu jàng eh, aayo Euh, jàng ba jàngale foofu mooy aaya sujjóot boobu di la moo ko tey jàng ko sax dana ko sujjóotal waaye nag julli farata wax naa ne ku fa jàng barabu sujjóot dana ko sujjóotal waaye sib nañ ko sib nañ nga tey di jàng foo xam ne dafa am sujjóota jamaj sujjóota jàng alxuraan ci julli farata loolu dañ ko sib booy jiiti nit ñi farata wala ngay julli farata jàngal yeneen saar yi nga xam ne amul sujjóot boo jàngee barabu am sujjóot danga ko sujjóot di resim nañ li nga def dégg nga Fayda sajada bu fa man kaana ku nekk fii salaatin ci julli Fayda sajada bu ko sujjóotalee xaama na jug fa xaraa mu jàng ci luñ sopp min anfaal ci anfaal aw xayriha wala ludul aw min anfaal maa teesal la jàppandi na ci moom su ma rakaa mur ko wa sajada sujjóot bu fekkee dafa doon jàng alquran ci julli mm-hmm. moo xam julli farata la wala wala naafila mm-hmm. bu jàngee barab bu am sujjóot na sujjóot mm-hmm. waaw waaye bu ti sim nañ ko nag mu tey jàng ko ci farata waaye dafay sujjóot bu ko sujjóotalee nag ba siggi ba taxawaat na jàngaat dara ci alxuraan dooru ko waaye bu mu sigi taxaw rek sujjóotaat loolu muy jàngaat nag dañ ko sopp kon bu ren bu doon tey fii la way sabbixunu wala yasjuduun day sujjóot mu ngi si julli waaye bu siggee ba taxaw na jàngaat yasalunaka anil anfaal jàng ci dara door a sujjóot wala mu jàng leneen rek door a sujjóot wa fi raad bu dee ci raad xen da xawli fa wax yàlla jëm naan wa dana sujjóot zilaaluhum seen ker yi bil xudwi ci xëy wala asaar ak ngont ak xam nga yàlla dafa tudd ci alquran alam tara anna laa yasjudu lahu man fi samaawaati mum si teg والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ديرل am na lu mu wax de am turan laa yasjudu moom sama wala tawaanu ak kër xam yàlla ki nekk si asamaan ñu nekk si asamaan ak suuf yëpp dañ koy sujjóotal tawaan gu leen neexee wa kër xam ak bu leen naqari waaye mu ne ñoom ñoom rek yemuñ si sujjóotal yàlla de seen kër yi dañuy sujjóotal yàlla wa zilaaluhum bil ghuduwwi wal aasaal laa yooyu nag yow firi. ba doomu nekk hmm, <laughs> ni la yàlla wutalee ker nii yow noonu nga nekkee ker ni la yàlla wutalee ker goo xam ni xam nga sa ker gi da lay jàngal ne yow ker nga te yow jàppoon ker la waaw ni ne sa xaqiqatu noonu yàlla sa ker gi force noonu lay suyootale yàlla xaqiqa yi nag ñoom taw an ci coobare lañu suyootale yàlla kër yi nag force lañu yàlla am na kër yoo xam ni taw dañ coobal dañu ci yóotal yàlla dégg ker goog nag moom day ci yóotal yàlla léegi nag boo jàngee ba si wa zilaaluhum bil xuddi wal asal foofu na nga sujjoot ci lan raad wa fi nax li bu dee ci nax la ci wax yàlla junaa yi xaafoo dañuy ragal rabbum seen borom ay ay azaba rabbihim dañuy ragal seen mbugulu borom min fooqim seen kaw waaye faam danañ def maa yumaru li leen digal loolu dañ koy mokkal euh, barab yi dégg nga kon bu jàngee foofu foofu lay sujjóot dégg nga ci nax la wa fi bani israil bu dee ci banu israil sootu israil subhanallah si asra bu yeggee ci waye xiruna danañ rot lil asqaani ñeel daaju sikkin yi xam moo gën a suufee ci kanam yàlla dafa tudd asqaanir waaye li mu si nam mooy dañuy rot si seen kanam gi dañuy rot di sujjóot seen kanam yi loolu la si nam waaye waxuñu da nga sujjóotee si sikkiñ bi déedéet wa yaquloon dañuy rot lil asqaani ñoom daaju sikkiñ yëpp ku ne ñu ngay jooy wa yaziduhum mu yokku leen xusuan toroxlu boo yeggee ci barab boobu suuratu Isra foofu barabu sujjóot la wa fi mar mariam bu dee ci mariam ci wax yàlla jum naan wa idaa tutlaa jàng nañ alayhim ci ñoom ayaatu rahmaani aaya yàlla xarru rod nañ leen di way sujud bu bukki yenn ñi way jooy ndeysaan nag doomu aadama boo xam ni mu soronkoñ mosu tuuri ngir ragal yàlla war ngaa xoolaat loolu loolu war na laa naqari ñoo xam ne buñ jàngee ci ñoom aaya yàlla ñu rot sujud jooy xool leen ndax mos ngeen a jooyam de bu ngeen jooyeen ngeen fexe jooy jooylu sax yonent loolu la wax bu ñu jàng alxuraan boo mënu jooy nga jooy jooylu booy jooy jooylu bu yàggee yàlla mën na laa yërëm ba may la nga jooy foofu barabu sujjóot la fil ci xaj awalu njëlbeen ba te mooy bii wa man yuhi ni dal na ko allaahu yàlla fama lahu did di ko ñeel min mukrimin ci aji teral ko ku yàlla toroxal kenn mënu koo teral kan moo ko mën a teral inna laa naka yàlla yefam dana lu ko neex te nag yàlla lu ko neex lay def moo tax nag ñi ko xam ñëpp dañ ko ragal parce que moom faalewul kenn lu ko neex lay def waaw xoolul kenn hmm. lu ko neex rek mooy seet ku ko neex mu teral ko teraang goo xam ne kenn mënu si dara hmm. waaye it jël ku ko neex rek hmm. xeñ ko kenn mënu ci dara ah, comme que lu ko neex lay def bul wóoru foo toll del góor del del di ko yaakaar rek ndax moom du tas yaakaar foofu ci xaj la xaj am na ñaari bara yu def sujjóot dégg Euh, waaye bii la bii ngay sujootal wa fil furqaan dee ci furqaan sootu furqaan boo yeggee ci anas juru ndax dañuy sujoot li ma taamuru naa ñee la ñu digal wa zaadahum mu doon leen nu nufuur ak daw ñoom bu leen yonent bi waxee sujootal leen yàlla ñooñu ak daw ak daw yàlla la leen yokk ku dem ba jàkkaarloo yonent bi mooy la sujootal yàlla mu yokk la daw xam nga ne kenn mënut laa defa moo tax yàlla rek a mën a jubee yonent bi nit da koy xool rek dal di bëgg yàlla xool rek daal di bëgg yàlla yow na nga mën a dund ak moom ba pare xamul lenn looy def lu ma ne dama koy noonu <laughs> yàlla mën a natt yàlla ci yàlla musal dégg nga anas didu ndax dañu si yóotal la ñu digal mu yokk leen ak daw dana yonentu wax jëriñu leen dara dawal la leen yokk <laughs> dégg nga foofu boo fa yeggee da nga ndax wuuteeg ñooñu di daw ñoom hmm. wa fil hudhud boo ñëwee suratul hudhud hmm. boo yeggee ci laaya ji yàlla wax allahu yàlla laa ilaa amul benn buur bu war a jaamu hmm. illaa huwa mooy moom rabbul arsh mooy borom arsh al bu màgg ja ni yàlla wéetaree bu xam foofu boo yeggee ci barab boobu na nga sujootal yow war na yàlla na ko nangul naa man wa fi alif mim tanzil boo fa yeggee mooy suratul sajda na nga sujjóot ci wax yàlla jëm naan wa sabbahu sabbal nañ bi hamdi rabbihim làmboo sant seen borom wahum ñoom laa yastakbiroon duñ rëylu laa yooyu dafay tagg ñooy sujjóot kon boo fa yeggee na nga sujjóot ngir nga bokk si ba fi saat bu sukkandikoo mooy lii mu njëkk wax moom ngay sujjóotal mooy li mu wax ne fastaxfara mu jéggul rabbahu boromam wa xarra mu rot raakaan di aji rukkoo wa anaba tam dellu ci yàlla loolu lañ sukkandikoo ne boo yeggee foofu moom ngay sujjóot ñi ne déedéet وقيل امنا ني عند قولي موي واخ يالا جيم نان لا زولفا اك اك جيغي وسنا ما ابن اك رفتك دلواي بو غي سي برب واخ وين لو عندنا لا زولفا امنا اك جيغي سي نون اك دلواي و رفت دنگ نين فوف غي سجوتي واي دا لي غنور موي فاستغفر رب و خرر كان وانابا فوف موي برب سجوت legi nak wo inna lu indana rasul fa moy ke sujud moy am jege yalla ak rafatak delu way da ngay sujud ba pare kay do ram lolou ها دا نيسو جلو بي دور ام لولو كون لي غنا رافل موي برب بوبو دي فاستغفر ربه وخر راكان وانا بو فو نغور سجود هم واي تيو ام ني لازول فاغي واسنا ما ام نعم ني سجود وفي حميم تنزيل بو ايغي سي حميم تنزيل موي سوتو فصيلات نغا سجود سي وخ يالا جوم نان واسجدو نغن نعم سجود لله نيل يالا الذي ما خمن خلقون بننا لين نعم. ان كنتم نم نك نين تعبدون دي جامو اياهم كسي بودي يالا رك نين جام نين كو سجودتال su ngeen yëggee booy booy jàng sootu fusilat ba yegg ci laaya jooju hmm. na nga sujjóot yii boo xoolee fukk la ak benn fukk ak benn yi nag moo di barab yi nga xam ne ni moom la ñu sujjóotal léegi-léegi da nga jàng ñu ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sujjóot nag ci lu dul barab bi hmm. kuy jàng dana dajeeg loolu waaye fukki ak benn yi mooy yi nga xam ne yonentu dafa continuer di ko sujjóotal ba ni muy génnaat kon yeneen ni dañ koo folli xam nga suratu naj mi yonent bi jàng na fas juru lillaahi wa abudu mus jur xéeféer yëpp sujjóot histoire boobu moom siiw na waaw ndax mooy sujjóot bi njëkk bu yonent bi biral ci xaramu makka bi xéeféer yi sax ànd ak moom sujjóot dafa ñëw rek di jàng suratu naj mi affaire bi jàpp leen xam nga boobu yàlla dafa dindi seen kiraay affaire bi dugg seen biir seen loolu loolu seen xaqiqa moo doon déglu waaye du seen ker gi yonentu di jàng di jàng affaire bi dugg leen ba ci fas juru lillahi wa abudoo ñoom ñoom ñu rot sujjóot ba ñu rotee sujjóot tayuñ ko bu ko defee ñëpp di leen yedd waaye ku fa nekkoon ni sujjóot ndax yàlla dindi kay daay gu rek bu ñëpp di leen yedd ñoom ñu ne déedéet ñoom boo gisee ñu sujjóot yonentu moo tudd seen xërëm yi di di ko tagg <laughs> looloo tax ñu sujjóot mën a nar ab yonentu dina tagg xërëm ñu ne looloo tax ñu sujjóot Ah, fekk na sax am na saxaaba yu gàddaa dem Habasha mais bañ déggee histoire bi dañ ne Màkka tuub nañ ñoom ñun ñu ñëw wala boo am ñu xaaj ñëw bañ ñëwee ndege histoire bi wérul gars yi tuubuñ xaal baa leen jàppoon rek ñu si jóot xam nga foofu hmm? eh, ñëpp si jóot nañ foofu Abu Jahl moom Abu Lahab moom si jóotul moo gën a bon ñëpp moom moom dafa jël suuf rek teg si jëb bi affaire bi jàpp ko gaa waaye gaa yi la gën a la yëkkati rek teg si jëb bi moom abu lahab saay saay bu bon bi ndeysaan waaye yooyu yëpp barab yooyu yëpp dañ koo folli ndax fuqahaawul medina yi borom xam-xam medina yi dañ daan jàng alquran waaye barab yu dul fukki barab gi benn yi daawuñ ko sujjóotal te dañ daan jàng alquran guddi ak bëccëg ñoom ñëpp duñ dajee si bàyyi sunna loolu dafay war ne luñ folli la walaa yasujudu du sujjóot asajjata ab sujjóot fi tilaawati si jàng alquran illa ala wudu in lu may si njàpp loolu wax nañ ko yow mi sujjóot faw nga amee njàpp ndax sujjóotal alquran julli la te julli balaa wér faw jàpp dégg nga julli gu mën a doon rek balaa waram jàpp dégg bu fekkee jàpp nga suyootal ku baaxul dégg nga nga jàpp daal bu dee mënoo jàpp nag wala da koo fàtte nga ba baaxul ba tey rek parce que moom dañu ne la ku ko war a def mooy ko jàpp yow kay boo jàpput baal na la eh, bu fekkee da ngay jàng alquran ci barab boo xam ni su yëtu alquran nag naafila la waxtu yi ñu siba naafila sib nañ ko fa ba mu des yenn barab yoo xam danañ ko léegi waxtu yi ñu xaraamal naafila xaraamal nañ ko ndax naafila su fekkee yàlla dafa def ngay jàng alxuraan ci waxtu woo xam ne dañ fa siba naafila boo yeggee ci barabu sujjóot ba borom xam-xam wute nañ ndax da ngay yekk ba si foofu rek nga tëb ko moom kese dégg nga ni kii boo doon jàng wa maa yuhini llaahu famaa lahu min mukrimin inna llaaha yaf'alu da ngay tëb maa yashaa gi rek continuer xam nga maa yashaa mooy barabu sujjóot bi ndax da ngay tëb maa yashaa continuer wala da ngay tëb laaya ji lépp kooku wutee nañ ci ne da ngay tëb ji lépp laaya ji am su joor lépp ngay tëb mm. ñu ne baat bu mujj ba rek moom ngay moom ngay tëb mm. parce que barab boobu bëgguñ nga jàng fi te doo su te bëgguñ nga su joor mm. boo fa jàngee doo su joor kon tëb ko tëb laaya ji nag dafa mel ni moo gën a yenu maanaam nga dem ba ci ab baat nga nga tëb ko parce que léeg-léeg boo tëbee baat xaw a yokku maanaa ba tey way zidum xushuan yow nga ne way zidum mu yokku leen rek noppi tëb ah loolu dafay xaw a wax ji day kon tëb laay ji moo gën a rafet dégg nga wayu kabiru naka baar laxaa ñeel su jootaw alquran boobu ñaari kabaar la am kabaarab sëgg ak kabaarab siggi nag borom dana yéree dana yéene su jootal ko ndax yéen dafa hmm? kon foo nga yéene su jootal alquran waaye nag doo kabaar kabaar xamal kabaarab sëgg ngay kabaar ak kabaarab sigg walaayu salim du sëlmal min haa ci su jootal alquran amul sëlmal sëlmal gi sax sib teewul am na ci borom xam-xam yi wax ne da ngay sëlmal moo tax mu ne bu fekkee li nga jublu mooy wutee gi nga génn ci far sëlmal benn yoon yow nga xam ni euh, amut ku lay mën a sikk ne la waroon ngaa def nangam te defoo ko bu dee loolu nga si jublu si buñ sëlmal ke boo royee Maalik moom sib nañ ngay ngay sujud alquran ba pare di sëlmal da amul sëlmal ba fi takk biir nekk na ci kabaar fi rafi ci yëkkatiku minaa ci moom saatun ak yaatu wen kabar waaye bu kabaaree foofu moom ahab moom lañ gën a sopp iléena si ngërëm maale dafa am ñu ne kabaarab sëgg bi rek la siggi bi jëlut kabaar moo tax mu ne booy siggi bu la mën ngaa kabaar bu neexee mën ngaa ñàkk kabaar waaye li gën a siiw ci ngërëm maalik mooy booy siggi da ànd ak kabaar loolu lay junj moo tax mu ne boo kabaaree ci siggi bi moo gën parce que loolu mooy li gën a siiw ci ngërëm maalik dégg waaye nag loolu mooy bu dee du julli amma bu dee si julli nga nekk booy sëgg dafay ànd ak kabaar booy sigg dafay ànd ak kabaar loolu dëppoo nañ ci mbir ci bu dee nga nekk di jàng baraba ah, sujjóot bay booy sëgg da ngay booy sigg da ngay kabaar dëppoo nañ ci bu dul julli wutee nañ ci waaye Malick dafa jàpp ne na nga kabaar booy sëgg booy sigg nga nga kabaar dégg nga nag am ñu ne boo sigi jërul kabaar waaye boo kabaaree moom moo gën ndax loolu mooy li nga xam ne moo gën a siw ci ci ngir mi dégg jamono bu muy sujjoon nag bëgg nañ mooy ñaan yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi bu doon sujjoot daf laa ñaan ñaan gi mooy allahumma uktub لي بها عندك أجرا عنك موكا ودع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام لون لون يرن تبدي نعم كون بوي سجود نغا واخ نعم غوغو ne allahuma yow bu yàlla uktub yàlla nga bind lii ñeel ma bi haa si sujjóot bi àndaka fa yow ajaran tiyaaba yàlla nga ma ci bindal tiyaaba wa daa yàlla nga sippi nii ci man bi haa si sujjóot bi bakkaar yàlla nga ma ci dindil bakkaar wajaala yàlla nga ko def lii ñeel ma àndaka fa yow zuxran muy ndaxañ téef maanaam yàlla nekk tiyaaba guñ ma dencil fa yow wa taqabalha yàlla nga nangu sujjóot bi min nii ci man kama taqabalta comme noo ko nangoo min abdika si sa daawud si sa jaam bi daawud daawud alayhi salaam daawuda dafa jéggul yàlla sujjóot yàlla nangul ko mais sujjóotam bi nag nekkutoon sujjóotam alxuraan moom daawuda sujjóot rek la ni nga nangulee daawuda sujjóot yàlla nga ko nangul di la sabab yi tax ñuy sujjóot nag bokkuñ wees ji ah, dana ko sujjóot moom sujjóotam jàng alxuraan man qaraa ku ko jàng fil faridati ci farata wan naafilati wala naafila ku ko jàng si julli farata moo xam kenn la wala imaam da koy sujjóot dégg waaye nag bu dee imaam la muy jàng nank ba yegg si barab bu war a sujjóot na wax ci kaw pour nit ñi xam ne imaam bi lii moo tax muy sujjóot waaye xam nga bu ko jàngee nànk rek ba pare sujjóotu ko noonu dafay jaxase mbooloon mi dégg bu ko jàngut ci kaw rek yow boo gisee sa imaam di sujjóot rek sujjóotal ndax lay cosaan mooy ñàkk juum te comme que mën naa am day siyoor siyoor kii rek hmm. defal foofu du ñu wax ne suñu liggéey yàqoon la nga koo topp ci kii wàññi déedéet day hmm. cosaan mooy ñàkk jum kon bu imaam béralut nga xool gis ko muy sujjóot te rukoowut hmm. ànd ak moom sujjóot dégg bi nag su topput imaam julleem yàquut imaam buy sujjóot maamoom bi taxaw maamoom bi dara nekku ci dégg nga sib na it nga di ko jàng si julli farata te yaa ko te yaa ko tey waaye boo ko ci jàngee danga ko si jootal waaw <coughs> boo doon julli jàng barab bu ñu war sujjóot si misaal nga doon julli farata jàng je barab bu ñu war a sujjóot te yow waxtu woo ngay julli farata xaraam nañu kii sib nañu naafila fa wala xaraam na ñu naafila fa da ngay sujjóot parce que julli gi la topp moo tax waaw amaa bu moom kese ngay jàng alxuraan nii na wala boo julli naafila loolu daganut kon di la waxtu wuñ la hmm. euh, ngay julli farata man nga ko sujjóot ndax dafay topp julli la dégg nga hmm. ku koy jàng si julli naafila it moom dana ko sujjóot ndax moom bul neexee nga tay sax julli naafila nga tay sax jàng saar woo xam ne am na sujjóot loolu ci sib farata la ko sib waaye naafila moom kenn sibuñ ko kon bu dee julli naafila da nga ko sujjóot lu tax ñu ne boo julli na nga ko sujjóot di la julli farata ak julli naafila ndax bañ a sujjóot yàlla def cee tëkku comme que yàlla def cee tëkku nag yow nga jàng laa ju am sujjóot fexeel bul dugg ci tëkku googu tëkkum yàlla wóorutu dugg <laughs> waaw yàlla jërutu ñeme sujjóotal rek ndax nga génn ci tëkk ko li tax ñu bañ nag nga di ko jàng ci farata mooy jaxase maamoom yi parce que ñëpp xamuñ dégg bu doon xutba nga nekk nag jàng barab bu war a am sujjóot si xutba nga nekk doo ko sujjóot xutba moom kenn du ko sujjóot ndax dañu bañ nga yàq xutba gi xutba xamuñ ko xutba ba si digg ba ngay sujjóot loolu kenn xamu ko dégg nga kon euh, booy xutba boo fa jàngee barab bu am sujjóot doo sujjóot te jàng gi nga ko jàng sib nañ ko mu teg farata sib nañ jàng nga waaye danga nga sujjóot waaw kon loolu la hmm? yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi nag nettal nañ ne xutba ba ci digg ba mu sujjóot mm. waaye loolu boo xoolee kenn defaatul ko loolu mooy wane ne kon luñ folli la ndax bu doon lu nekkul luñ folli dañ koy defaat mm. def buñ ko def benn yoon bàyyi ko mm. kenn laalaatul ko loolu dafay war ne luñ luñ folli la dégg nga mm. kon bëgguñ nga sujjóot ci biir xutba te sim nañ nga def ko loolu dafay yàq nizaamu sujjóot gi dégg nga was du daa dina ko suyoo man xaraa ku ko jàng fil faydati ci farata wan naafilati ak naafila was du daa dina ko man xaraa ku ko jàng baada subi gannaaw suba maalam yus fir fekk jant bi eh, fekk bët set leerut maalam yus fir fekk leerut bu baana asira gannaaw tàkkusaan maalam tasfara fekk jengut asamsu jant bi xam nga wax nañ ne sujud wal quran naafila la kon naafila sib nañ ko ci waxtu wuñ tere naafila léegi buñ julee suba ba pare foofu duñ fa aaye naafila waaye moom sujud wal quran ak jullee néew maye nañ ko buñ julee suba fekk jant bi fekk leerut fekk leerut waaw xam nga fajar mën naa jot ñu julli suba mais leer agut xamee bu dem bu demee ba leer nañ nag kenn du fa jullee ci néew kenn du fa sujud sujud wal quran fajar moom bu ñu xas jot rek leer na am leeru naafila daganul sib nañ mais si jotam alquran ak nañ ko hmm? dégg eh, naka noonu it buñ julee taksaan mais buñ julee taksaan fekk jant bi gërul maanaam fekk demoo ba sa kër la ñaar diggante boobu mën nga faa sujjóot sujjóotab nga faa néew moo tax am na néew yu bari gën naa taksaan lañ leen julli loolu dagan na hmm? bu yàggu na maa ngi mos dégg ku koy laaj na waa man li ma jaaxal fii Sénégal néew dañuy xaar ba julli takusaan ba pare ñu doon jullee te néew gannaaw takusaan jàng lax dëgg ba pare su jur fa dagan na dégg kon waxoon nañ ne kuy jàngal Alxuraan ak kuy jàngale ñoom bu ñuy baamu benn aaye benn yoon bi rek lañ koy sujjóot mooy yoon bu njëkk bi dégg nga bu réew da ngay jàngale nag waa mbooloo mu bari ngay jàngale ñoom ñëpp dañuy dañuy jàng te jàpp nañ laab nañ yow boo jàngee alxuraan ñoom ñëpp a sujjóot ndóor ñoom ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy bu fekkee it nit la koo xam ne ni moom dafay def guddi gu nekk rek mu jël benn laaya di ko baamu di ko jàng jàngaat lu bari kooku yoon bu njëkk bi rek moom lay moom lay sujjóot kon yooyu mooy euh, li nga xam ne moo aju ci bunt bi in uridu il islam statu ma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaye nag wax naa ne maam moom du ko sujjóot moom maam moom bu tayee sujjóot sujjóot alquran tey maam moom sujjóotu ko julleem dafay yàqu moom maam moom boobu bu ko tayut nag dara nekku si asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu